moom la ñu ko daal di dénk ngir mu doxal ko ci bopp réew Sénégal mel ni ku koy tontu am Aminata Touré naan ko nag ñun ñi ay jigéen lañu ak i góor yoo xam ne rek am nañu expérience gu mën a doxal ak soutenir nag gouvernement bu Sénégal ngir mu yegg fi mu jëm jamono ji nag ginnaaw bëgg-bëggu askan wi moom Bassirou Diomaye fay mi njiitu réew Sénégal nag bëgg naa gën a bàyyi xel nag priorité yi nga xam ne rek moo soxal coalition Diomaye président ni ko maître Abdoulaye wadd amee woon nag mu di cap 21 Macky Sall am bennoo Diomaye fay moom am na Diomaye président boo xam ne rek fas yéene na ànd ak moom ngir liggéey ba mën a doxal réewum Sénégal ci biir yëglekaay bi di Vox Populi moom Bassirou Diomaye Faye ma xam ne ne tabb gi ñu ko tabb nag jàppeewu ko ni victoire waaye la ñu gàll ci ndoddam ba moom njiitu mi di woowaa coalition Diomaye président ngir ñu daal yoo xam ne rek dafay méngoog bëgg-bëggu askan wi ma ngay sàkku ci jëwriñam yi nga xam ne rek ñoom la ñu tabb yees ngir ñu daal amal taxawaay goo xam ne rek dafay tax ñépp naw leen ci liggéey bi ñu war a amal ci bopp réew mi bés bi le jour dellu soir ci ndaje moomee nga xam ne rek waa coalition ñu ko doon amal ak njiitu réew mi yéenekaay bi ne Sonko ma ngay calmer ñi nga xam ne rek ñoo di rëkkale yi ma xam le ci biir yëglekaay bi ne naam njuumte mënta ñàkk waaye nag du doon faute institutionnelle ma leen di nag ngir ñu booloo defub dànk nag su ko defee ñu mën a jàppale njiitu réew mi di Jomaay Fay Les Échos yëglekaay dellu siwaat ci Bassirou Jomaay Fay mi nga xam ne rek ma ngay yëgal ay aliyem nag ci situation bu doy waar bi nga xam ne rek moom la ñu fekkee jamono ji réew Sénégal nañu waajal te xam ne nag dinañ traverser ay situation yu doy waar moo waral ba Ousmane sonk nag di tàllal ñëpp loxo nag ngir ñu jàppale jàppale kii di Bassirou Diomaye fay te bañ koo bàyyi ci solitude bi nga xam ne rek ci la président Macky Sall nekkoon l'info yëglekaay dellu siwaat ci kàddu yi nga xam ne rek moom Ousmane Sonko mi élimaanu jëwriñ bu Sénégal ma ngay xam ne ci yëglekaay bi di l'info ne Macky Sall nag solitude bi nga xam ne ca la nekkoon moo ko yóbbee li ko dal yépp tey jii nag ndax saay bu bëggaan jël dogal nag dafay am ñoo xam ne dañuy taxaw ci wetam nag di ko won ne ñu sa ginnaaw te loolee dara amu ca moo waral nag ñun ñii kon war nañoo am taxawaay nag gunge Bassirou Diomaye Faye ci lépp loo xam ne rek mu ngi koy doxal ci bopp réew Sénégal bi ci njëkk nag nag bokk na ci jox ko ci rub njiitu réew bi mu doon ndax nag suñuy adversaire jamono ji nag dañoo ñàkk xeex bi te bi ñu ñàkkee xeex bi ba nëgëni si nag wéeruñu gànnaay yi ñu ngi taxaw jamono ji nag jàkkaarlook ñun rek di xaar ñu def erreur ngir ñu mën a dal suñu kaw Walf Quotidien di pendaje moomee nag ab séance d'explication source à dellu su tey ji nag ci annulation bi ñu annulé nag nomination bu premier président bu cour suprême yéene kaay bi ne décret jomaay boobee nag kenn gisu ko fenn lu mu ci mënti doon daal faaw ñu daal di xam rek ndax ci ab décret lañu ko daal di jaarale Diomaye Faye nag ci càkkutey fam la roccee lu nu yéenekaay bi ma ngay dellu suwaat nag ci annulation décret bi nga xam ne nag moom la ñu mujjee taxawal ca conseil supérieur bu magistrature ancien régime bi nag ma ngay dànkaafu Diomaye Faye décret boobee nga xam ne nag Macky Sall moo ko taxawaloon ngir tabb ki nga xam ne rek moo di njiital conseil supérieur de la magistrature waa APR jamono ji nag ña ngay xupp jëmale ko ci kaw Bassirou ma ngay àddu jëmale nag ak professeur Ismaïla Madior Fall moom Bassirou Diomaye Faye addu ci beneen yëglekaay mu di Sud Quotidien ab taxaw seetlu la amal niki tey jii nag jëm ci adoption bu ñaari luwaa yoo xam ne rek dafa soppi base yi nga xam ne rek moo jëm ci xeex bi ñuy amal nag ñeel wàllu corruption fii ci réew Sénégal yéenekaay bi ne Macky Sall gas na ba mu xóot daal di suul nag lépp loo xam ne rek rapport la gu bàyyee ko woon ci OFNAC ñeent ci ay dossiers yoo xam ne rek dañu koo enquête ba war koo leeral nag ci kanamu procureur bi loolee lépp nag boo moytuwulee kenn dootu addu jëmale ca ci biir yëglekaay bi nag kii di Mounirou Fall mi nga xam ne ab économiste la nag ma ngay alerté nag ngir ñu bañ a bàyyi lii nga xam ne rek moo di corruption bi nag di gën di yokk dooleem fii ci réew Sénégal yër leen boobee yëglekaay enquête yëglekaay nag xëy tey jii dellu soir ci faatu kii di professeur Maguette Thiam mu nekkoon ab professeur émérite nag nekk mathématicien bu mag a mag moom Maguette Thiam nag daal di amal ab parcours bu am solo moom mi fi nekkoon secrétaire général bu PIT nag Bassirou Diomaye fay di xam ne ci biir yëglekaay bi ne éducateur la woon na moom Maguette Thiam nag formé na ay junniy junniy cadre Mankeur Ndiaye di ko feelu ci biir yëglekaay bi ne Sénégal ñàkk na ku mag waa gauche bi nag jamono ji ñàkk nañu nag ab figure emblématique keneen koo xam ne ñàkk nañu ko nag war ko jébbal suñu boroom niki àllarba ji lay doon mu di Mouhamed Boun Abdallah Dionne yéenekaay bi ne ab néewam dinañ ko delloo si waat fii ci réew Sénégal ngir jébbal ko boromam ca Touba niki àllarba ji lay doon jeexalee ak yëglekaay bi di Libération coowal Seydina Mouhamed Diop juróom benn way takk der ginnaaw bi leen waa dig tegee loxo ca parquet bu Pikine nag ak ca Géejawaay liñ leen di toppee nag bokk na ci faat bakkan ginnaaw bi ñu